salaamaaleykum journaliste salam salaamaaleykum euh, mbokk Y'en a salam yi également suñu partenaire wa F24 qui nga xamantene ne ñëw nañ une ci conférence de presse bu am solo bi euh, di massawu ñom Alioune Sané di massawu ñom Sœur Tige di massawu bépp nit bi nga xamantene japp nañ la dans le cadre de ces événements Bapare, baye ci dafa une question essentielle qui a été soulevée Moi, cette question relative à l'amnistie il me semble très important de nous interroger pourquoi on se précipite pour une amnistie Alors c'est une question fondamentale cette amnistie c'est une auto-amnistie comme ni ko tin ou wala euh, Senghane wala amnistie bi dafa am ñuko bëgg a liñ ci bëgg a rek moy Y'en a marre y war faral di wax ni après tout ça lan mo ci walu askan finalement beaucoup de choses se passent et après on négocie et on revient à la case de départ c'est-à-dire le contentieux il est toujours différé mooy problème bi li ñuy wax tey waxu amnistie euh, mbir la moo xamante ne bu ko sénégalais yi seetaane ëllëg dinañu rattraper parce que dinañu delluwaat mooy xeex boo xamante ne effectivement gañewuñ ko wutaluñ ko solution dafay baax nag mouvement yi journalistes yi parti politique d'opposition et surtout parlementaires parce que parlementaires yi dañ un fal askan ont les leen ne leen nag pour nous faire l'assemblée biir assemblée. donc interpellons les parlementaires yi ci de su cette question liée à l'amnestie. donc nous ngi fait nous di wax ni dafa laaj taxawaay. dafa laaj taxawaay dafa laaj taxawaay ñëpp taxawaay boobu nag euh, parlementaires yi ñoo ci ñoo ci war a jiitu parce que li ñuy li ñuy li ñu nekk di wax nii tàmbale ko ci nañu joxe ndam nañu parce que ci interview Macky Sall bi mujj ñu ngi wax waxu ndàmpaay ñu ngi wax waxu effectivement naka ngay fexe sa njaboot naka nga leen di protéger loolu rek daf ñuy jox ay information yu am solo ci li nga xamante ne moom mooy inquiété Macky Sall ci li nga xamante ne noonu la bëgg mbir yi demee bu fi nekkatul c'est-à-dire il veut véritablement protéger ses arrières mais protéger ses arrières en torpillant la loi en torpillant la constitution en torpillant les principes démocratiques te loolu amul benn mouvement citoyen bu war a taxaw di ko parce que problème la bi nga xamante ne lu ñuy dabaat ëllëg la ñu war ci am ay taxawaay yu am sincère euh, yu yu donc ñi fi wax ñëpp delluwaat nañ ci responsabilité euh, les parlementaires parce que ñun parlementaire yi ñoom ñoo ñu teewal biir assemblée nationale lu parlementaire yi amul fulaay xeex ko ci biir parlement bi su boobaa xeex bi day delluwaat rek ci loxo ci ci responsabilité askan wi te bu ñu delluwaatee ci res buñ ko delloowaatee ci askan wi li muy indi mooy ni mu demee woon deux mille vingt et un demee ko deux mille vingt deux demee ko deux mille vingt trois